manifestation yi. ci responsabilité am madame la ministre ñu ñu bàyyi la nga yeggale foofu par rapport ak cas yi yaa ngi wax ne bu ñu ko autorisé wul naam ci lay amee yooyu mais ba tey est-ce que mën nañ ci génne seen ay responsabilité su fekkee ne am na ñoo xamante ne bu ñuy manifester dañ ciy profité di yàq di jël allu jàmbur ak ak di tojate. xam nga jël alalu jàmbur moom kenn du ko kenn du jël boobu responsabilité au contraire état sax moom moo war jël moom moom moo yor la la sécurité des biens et des personnes euh, te loolu bu fekkee ni manifestation amul dara amul sax da ngay gis même làmba ji bu jeexee ay kaas dafay am ñuy euh, euh, da ñuy ñuy dogale ay nit di leen fekk ci seen oto di leen menacer yooyu mënuloo ko teg opposition bi te Fatou man loolu dama la ci wax léegi balay waxtaan bi di sore parce que daf dul neex pour un leader nga toog fa nga bokk ñu di ko accuser day indi coono ci ñun man gis naa sa plateau ndax coono yooyu nga xam ne da ngay obligé xaw ma da nga koy def sa façon wu mën émission la xaw ma wala déet mais jël benn affaire rek teg ko nit ñi. bëgg ko teg opposition bi ah oui oui ay accusation la. parce que yow leer na la ne ñun nous sommes un pays de liberté liberté yi nga xam ni moom la ñuy réclamer constitution bi moo ko consacré wax naa la ne la constitution bi nga xam ne moom la Ablaye Wade jëkk initié en 2001. vingt et une liberté ngi ci dix-neuf liberté consacré ñun assemblée lañu def quinze ans xam nañ liberté yi comme comment important Sénégal loolu rek lay tiitaroo ñu daal di am benn président bu tudd Macky Sall ndar képp liberté yi du ñu autoriser marche du ñu autoriser meeting du ñu autoriser dara donc loolu dafa te loolu da ngeen koy vivre au quotidien waaw mais mais waaw est-ce que mën nga ñu est-ce que mën nga ñu bañal. madame la yi. Mhm. ñu ni nga ko waxee ñu nangul la ko parce que Sénégal la ñu nekk c'est un constat. des manifestations interdites alors que c'est un régime déclaratif est-ce que mën nga bañal taskatu xibaar bi su fekkee am na ay yàqu-yàqu am na loo xamante ne ay tojate la ci yenn bind. ñu tere ko mu am nga toog ci plateau duñ la ko laaj et duñ leen laaj est-ce que vous mesurez la responsabilité de ça. non non responsabilité bi duñ ko nangoo jël. waaw mais laaj na rek kon on kenn puusu leen ko. on vous pose une question voilà ah kay da nga am koo xam ne mooy nangu mooy tere. te ñu ñëpp constaté ndoo ni li muy dépenser ak li muy investir ci moyen humain ci moyen tout court. bu bu koy teree moo gën a metti daf dul sax logique parce que ñoom li ñuy def li ñuy dépenser pour tere nit ñi suñu bàyyi woon nit ñi ci seen liberté rek mooy meilleur moyen wu mesurer suñu responsabilité dinañ xam ndax ñun nous sommes responsables wala nous ne sommes pas responsables wala ndax bëgg nañ réew mi wala bëgguñu réew mi mais nag mënuloo di teg nit ki li nga koy teg foo toll euh, heure bu nekk ñu ngi ñu ngi ñuy attaqué heure bu nekk ñu ngi ñuy bloqué dem ba sa kër sax man waxuma la ay kër Ousmane Sonko dañ ko jëlale mais sama kër man ak ñun ñu dëkk cité kër góor gi mais ñun mënatuñu circuler da ngay obligé naan sa jànq demal nga wuti lii balay ñuy commencé tëjati parce que xamuloo kañ la ñuy tëj dangay jékki-jékki rek gis ñuy teg ay barrière jékki-jékki rek gis ñuy teg ay camion yooyu aussi du fotu du fotu opposition bi. waaw mais maman yaa ngi wax wàllu liberté euh, tubaab nee na ma liberté s'arrête là où commence des autres. ñeneen ñi ci askan wi tamit euh, fii la ñu bokk te ñëpp euh, bokkuñu ci ñaxtu bi nga xam ne moom ngeen def ndax bu ñu xool chaque fois seeni euh, motifu manifestation raison politique moo ci ëpp plutôt que li nga xam ne moo di jafe-jafe askan wi preuve conséquence bu njëkk bi mu ngi nii lu jëm ci vacances scolaires yu pag yi dañ ko anticiper te loolu day wàññi kantam horaire bi Euh, boo ko dindee ak grève yi nga xam ne enseignants yi moom la ñuy def est-ce que yéen ngi xalaat gàllankoor yi nga xam ne askan wi ñu ngi koy am ci manifestation yu bëri parce que mu ngi bëgg a bëri si kanam mais lépp raison politique la lan moo ko indi da ngay seet lan moo ko indi lan moo tax ñoom ñu ciblé ni le 30 ak yooyu parce que fii moom dañuy d'accord ci ministre bi li mu def parce que éducation ku nekk xamal na ko ci ay partenaires sociaux ay partenaires sociaux ñoo ko demandé ni ko tel date ak telle date même boo ubbee du ñu yabal suñuy doom donc concertation loolu lay jëriñ mais lu ko indi du dañ doon minimiser bi problème yi amee mu at deux mille vingt et dañ ne non non non non bi rek la nanguwuñ ko bàyyele kenn léegi encore ñu ñëw ni la personne dinañ ko agressé la personne bis buy dem dañ koy kar muy jaar fu ko neex la personne moom itam daal di samay sañ-sañ samay samay samay sañ-sañ danaa ko doxal ñu xalaat ni ñoom nekk nañ sur un pied de guerre jël nañ seen munition jël nañ seen ay troupes war a dal ci kaw nit ñi ñoom ñoo annoncé la couleur loolu mooy dara dina am donc nañu fatagum xale yi. appel à l'insurrection yi moo ko waral. mais mais ku ñu opprimé. ku ñu opprimé nga nga ànd ak sa peuple euh, euh, euh, résister sa sera dafay nekk un droit résistance mooy un droit à l'oppression. Mm-hmm. du ñu nangu fii kenn kii parce que nekkuñu ci royaume royaume jeex na. mais ñu ko doon dañ koo bàyyi. mais yi ñuy woote leader politique yi bu fekkoon dañuy jiital seen njaboot. nit ñi mën a d'accord ak ñoom mais bu ñuy jàpp garda yi ak prison wax lu leen neex yow xam politique yi seen mm-hmm. seen njaboot yi ndax kam kenn mës nañ leen ci jàpp yow yow wala yóbbu leen man dama jëlale ñeneen ñi ñëpp mais ñun ñëpp ku ci nekk sa njabootay jiitu ñun keroog dañu taxaw ci conférence de presse bi nga xamee ne tëj nañ euh, tëj nañ siège u Déthié Fall ñuy def conférence te booba ñoom ñu ngay def seen conférence de presse ci lu leen mooy le 16 bi Ousmane wuyu jee bi ñu ñëwee ñu tëj siège Déthié Fall ñu taxaw fa benn xale bu góor moo ñëw ne ma dama lay laaj ndax naa Tane na booba man xaw ma sax fu mu nekk mais yaay la ma wax ko mu daal de ni ma noon loxo bi moo amoon problème après jëkkati nañ ko après yóbbu nañ ko après def nañ ko suñuy njaboot ci dëkk ci réew mi lañ nekk li xale yi di sentir loolu lañuy ñuy sentir ñoom it li li seen avenir bi ñu bëgg a hypothéquer ñoom itam dañu am un avenir incertain comme xale yi nga xam ne dañu bëgg effectivement arrêter li fi nekk parce que li fi nekk ko arrêté wul fa muy jëm du leen neex ku ci ku ci ku nekk nag à l'abri nga xam ne xalaatoo sa ëllëg wala lii nga xam ne moo nekk ci réew mi ci cher wala marché bu metti bii wala fajuwoo wala éducation bi baaxul loolu moom boo ci nekkee à l'abri yaa ngi ci benn côté wu vingt pour cent boobu nga xam ne ñoom ñooy dund nekk ci seen naataange waaye ku bokk ci 80 pour cent yi nga xam ne ñu ngi leen di brimer amuñu ndox mu doy amuñu électricité bu doy amuñu lekk gu doy ku dem marché bi doo am looy yóbbu koy jàng do xam loo looy jàng motivé wu ñu jàngalekat yi kooka moom 80 pour cent yooyu moom bu soobee yàlla dinañ xeex. bu baax waa kay Mohamed Diop profitoo dee ne di nuyu plateau bi yëpp mm-hmm. <laughs> euh, attaqué directement mm-hmm. alors euh, man li ma bëggoon xam mooy en tant que euh, ki fi nekkoon ministre ci ab gouvernement bu def alternance nekk assemblée nationale yàgg fa lool macha allah bëggoon naa nga defal ma une lecture profonde de la politique telle que exercée quand même dans l'espace public est-ce que animosité politique nekkul ñu di ko gën di nemmeeku ak civisme que véritablement adversité politique bi nga xam ne Euh, moo waroon dox entre acteurs politique mais euh, loolu nag moom moo jërë tiit parce que kooku def dul Sénégal Sénégal dañu xam lu ngeen politique politique politique am na fu muy yem. Sénégal lu ngeen politique politique li ñu naan euh, plaisanterie ak cousinage ak yooyu dañ ko daan prévaloir pour mu am séeréer ak joolaa di kaf tukulóor ak séréer di kaf mbayeeg mbuub mbayeeg kële jóob ak njaay yooyu la Sénégal xam am ay levier yoo xam ne bu naree tàng ba tàng sax ñu actionné leen. même entre entre politique ah. entre politique dañ daan gis bu tàngee ba tàng. même boo leen dajee ñu wax ci benn espace. mais léegi mm. moom képp ku bokk ci parti jéem a wax ak ku nekk opposition dañ lay indil problème maa la wax loolu. Ah maa la wax loolu. léegi léegi léegi waxuma la ni ñu ni ñu séparé dëkk bi waxuma la ni mu creu kii ni mu creusé woo euh, diggante bi ni mu ni ñu ko xaajalee Sénégal ni ñu ko xaajalee mais léegi nit ñi dañu dem ba ragalante dañu dem ba ragalante parce que boo nekkee di yéene sa morom de njaal doxatu fi dara doxatu fi loolu dafa dafa dafa dafa doy waar te moo nekk ci réew mi actuellement. est que li ko li ko li ko sabab nekkul opposition radicale bu ñu am. opposition opposition moo fi mës a nekk. c'est-à-dire que consensus bi nga xam ne moo war a am ci réew mi tudd Sénégal. consensus boobu responsabilité borom réew mi la. ba mu wootee dialogue nit ñi dañ ko wuy ji. ba mu nee Covid bi dafa laaj consensus nit ñi dañ koo wuy ji. ba mu laajee xaalis dañ ko koo jox. ba mu wutee loi d'habilitation dañ ko koo jox. ba mu ñëwee assemblée dañ ko nit lépp loo xam ne moo jëm ci Covid bi dañ la koy woteel donte ni xamoon nañ fu muy mujj ba ñu demee ba ay dérive am ñu gis ñuy jox ay marché ñoo xam ne waruñu koo am ay 3 milliards di génn kenn mënu koo expliquer la ñu def euh, question d'actualité 15 juin 2020 luñ ci am menace de mort moom lañ ci am dans l'exercice de nos fonctions moom lañ ci am lan la Cour des comptes génn barki démb Ndiaye mbooloom point ya nga xamee ne laajoon nañ ko moom la moom la cour des comptes génnewaat ay défaillance ci 1000 milliards yi. xam naa xam naa dinañ ci ñëw waaye benn pàcc wax nga ko léegi benn pàcc opposition bi mi ngi sax entre acteurs politiques ñu ñu ñu waxtaan muy dialogue bu sincère mais degré tension bi fi mu toll est-ce que waxtaanu ku tëx lu lu gën a am jamono jii que ay acteurs politiques moo xam ñu nekk ci kujje gi comme ci pouvoir bi toog waxtaanee réew mi. Euh, euh, waxtaanoo. bañ a waxtaan. est dina mën a nekk ak degré. tension bi ma ne la responsabilité moom. du góor du jigéen du benn du ñaar. benn nit rek moo yore loolu yéen ngeen am ci ngeen am ci. non non parce que moom mu ngi fi woon weccee wuñ ko bi mu wootee dialogue ñu ngi fi woon man bokkoon naa ci ñu sonn pour que ñëpp dem ci dialogue bi keroog ba mu wootee dialogue bi man jël naa parole ñu félicité ko. lii ma wax ci ministre de léducation man loolu laay mës a doxal même assemblée bu ministre bi defee lu baax ma ne ko def nga lu baax ministre de léducation éducation wàññi na quantum horaire bi. d'accord soit wante jàmm gën lépp bi nga xamee ni woon a partenaires yi partenaire ci seen bopp ne ñun ñoo ko ñaan ni ko defal nangam man dama ci d'accord parce que ñoom ñoo jur seeni doom te loolu tam constitution bi daf ko consacré ku am doom lu la neex nga koy nga koy choisiral ci njàngam. waaw mais fitna gi ñu gis mu yeewu depuis un bon bout temps dafa lié à des affaires judiciaires jëmee ko ci Ousmane Sonko digganteem ak euh, Mame Mbaye Euh, mais dama ciy laaxaale lu mel ni dangeen ngeen ñu bëgg indiwaat ci contexte 2011 est-ce que bëggu leen euh, indiwaat même contexte boobu nga xam ne dañu dëgmaloon troisième candidature ab Abdoulaye Wade ren aussi même scénario moo fi nar a am fii ci Sénégal est que bëggu